dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar danga ko seetaan bu dara raw mbokk yi ñu ngi fii ci box numéro 93 94 ferme Dabakh lañ koy wax élevage ferme dabaax élevage tey nag dafa ñëw ak trophée boo xamante ne dañ ca ñëw ak yéen ak maal bi nga xamante ne mooy Dabala Dabala dafa génn tey ci li nga xamante ne mooy huitième édition Saladel 2022 premier ci Mal Espoir catégorie boobu nga xamante ni moom mooy catégorie bi nit ñi di am yaakaar gëm ni ku ci génn premier yaakaar am na bu baax ci ne bis boo demee ba nekk grand mal doo tolloog say maas ci benn côté yàlla defal nañu sutura waaye ki nga xamante ne mooy Hélène ma bëgg ko lool di une grande femelle macha allah ñëw nekk sama wet bëgg ma lool moom it dinañ ci waxtaan waxtaan ceeg ki nga xamante ne moom mooy grand El Hadj Cissé félicitations mon frère. merci beaucoup grand merci. merci ndam li yàlla na la jik amiin ñu bokk amiin ci yeneen i ndam topp amiin ñu bokk amiin amiin dabalaa mi nga xamante ne tey moom moo indil euh, ferme Dabakh élevage bergerie Dabakh élevage ñaar yëpp la mhm. bergerie la woon ñu dem ba mu dugg ci cadre ferme mhm. ndax dañuy def ay nag ak yeneen mhm. dinañ ci ñëw waaye grand dabalaa ñëw na indil ñu ndam ci li nga xamante ne mooy huitième édition Saladel 2022 waxaat ñu kan mooy Dabala fàttali ñu ko. ak naka la ndam li mel ci yow. bon ndam li moom neex na trop parce que Dabala boo xoolee ay maamam yëpp presque si man lañ jógee doomu Vietnam la. Mhm. donc naam kenn dootu ko présenté kenn léegi ak lu élevage yëpp xam nañ ko. Mhm. mais ci wàllu yaay yi encore doomu euh, francophonie mhm. moom moo jur yaay yi. et puis encore commune bu ñuy wax Kumba Gawlo moo nekk maamam. donc ñoom seen côté ndam yàgg nañ fa am parce amoon na benn tantam bu jëloon meilleur agnel Saladam moom bu ñëwaatee Saladel bi jël premier bon du ñu bett quoi. parce dafa nekk loo xam ne si ñoom la nekk daal kenn du ne guleet wax na ko nekk na maal boo xamante ni il est tout simplement prometteur waaye nag génne ay mensurations yu doy waar grand est-ce que yaa ngi fàttali lan jël ci lan la génne un mètre neuf la am espoir. am na poids cent trente. point deux cent trente kilos point deux. macha allah am na TP cent vingt cinq. Mhm. alors que am na LCS 154. macha allah voilà mbokk ngeen xam ni euh, loolu nga xamante ni moom la génnee ci ay mensuration am na ay maal yoo xamante ni dañuy dem ci foire gagné ko tam mensuration yu toll noonu la ñuy génnee kon yaakaar am na ci yàlla bu yàlla tas yaakaar benn yoon ci maal bi nga xamante ni c'est un mal espoir dabala aywa mu ñëw nag ànd ak ay femelle yoo xamante ni macha allah ku ci mel ni kii Hélène moom la ñuy njëkk présenté moo kan. waaw Hélène sœur la si ah non Hélène yaay la si Dabala mhm. parce que yaayu Dabala ak euh, Dieynaba ñoo bokk euh, ba ak euh, yaayu Hélène ñoo bokk benn yaay donc kii moom doomu Sebinton la Sebinton nekk doomu Abbas Abbas nekk doomu Papi. nekk doomu Papi doomu Papi. ok waaw. aywa mu nekk ba léegi mbégte ci yéen xam naa ngeen di gis femelle bi nga xamante ne robe bi macha allah mu nekk une grande femelle mais rafet lool mooy kan. waaw kii Diena Senior lañ koy wax. Mm-hmm. donc moom surtout Mifta la. Mm-hmm. sama benn xarit bu ñuy wax sëñ Modou Tëngéej moo ma ko jox. Mm-hmm. mais añal la ko añal la añal la dafay doog a ah, foofu ne rek allah añal la ko macha allah macha allah. Mm. ba tey mu mel ni dafa am beneen femelle bu taxaw ni kii mooy kan. waaw kii moom day neex a présenté tey. Mhm. parce que kii mooy Magu Dabala. ok ñoom ñaari ñoo bokk benn yaay. ok voilà mais moom doomu Renades la. ok donc mooy Magu Dabala quoi. doomu Renades la Renades mooy baayam moom Renades doomu francophonie francophonie Koromak. ok waaw aywa ba tey femelle bii mooy kan. kooku sëru Hélène la moom moo topp si Hélène. ok ñoom ñaari ñoo bokk benn yaay mais moom doomu Vietnam la. doomu Vietnam la waaw. aywa mu nekk lu am solo mbokk yi kon ma wan leen ki nga xamante ne encore une fois mooy le champion. Euh, catégorie espoir de cette huitième édition Saladel 2022 nga xamante ni histoire dootu ko fàtte mi ngi nii nga xamante ni moom mooy Dabala ñu koy ñaanal comme niñ koy waxee doomu ñay jarul ñaanal rëy ñaanal ko gudd fan ndax la mu war a am yëpp bu fekkee ne gudd na fan rek dina ko génne incha allah aywa grand mu mel nii ñaari box nga jël am na beneen box boo xamante ne ay tëng ñoo ci nekk ñu dem nga présenté ñu box numéro 94. Mm. wala da ngaa bëgg a waxaat ci Dabala. waaw Dabala tey moom képp koo xam ne yaa ngi HLM Grand Yoff. waaw ak Laadum Grand Yoff. Uh-huh. ñoom ñëpp kontaan nañ. ak euh, Yoff ñëpp kontaan nañ. Mm-hmm. parce que xar boo xam ne la xaru Yoff la xaru xaru Grand Yoff la. dëgg la ndeysaan voilà xaru Yoff la xaru Grand Yoff la. aywa kontaan nañ si moom trop tey parce que wax dëgg yàlla sagal nañu. macha allah voilà na ay macération yoo xam ne si espoir. Mm-hmm. donc euh, ñëpp la bett. macha allah aywa ñu koy ñaanal yàlla barkeel ko bu baax a baax ndam li yàlla na ko jik yàlla na ànd ak moom ba nekk grand mal yàlla def ko mu yëg koo jëm premier nag la ñuy xaaraat ci moom incha allah ci yeneen foire ñu dem ci li nga xamante ne mooy tëng yi aywa mbokk yi ba tey euh, ci biir ferme euh, baax élevage ñu dugg ci box bi nga xamante ne fii la tëng yi nekk grand vraiment macha allah liggéey bi rafet na ki mooy kan ci tëng yi waaw kii euh, doomu Vietnam la mhm. moom neex na présenté Mm-hmm. yaayam nekk doomu Liberté euh, Liberté cinq mm-hmm. Liberté 5 nekk doomu Jama Jama nekk euh, yaayam nekk encore doomu Mandel ak Koromak. ok waaw macha allah mu mel ni kon moom ak euh, maal bi nga xamante ne mooy Dabala ñoo bokk benn baay. ñoo bokk benn aywa na keneen ñëw kii mooy kan. waaw kii nii mooy taaw Dabala. Mm-hmm. donc ak sa xarit bi léegi Hélène moom la taawloo uh-huh. donc moom am na léegi six mois et demi. moom mooy taaw Dabala quoi. muy taawu dabala dabala moom ñu ngi ko tuddee soxu bébé. macha allah voilà. macha allah xam nga xar li ñuy xaar ci moom ginnaaw bu génnee ay melokaan yoo xamante ne ñëpp sopp nañ ko souvent li ñuy xaar ci moom mooy production bu rafet. te xam nga ku génnee lii ci taaw macha allah mën nañu xaar ni mën naa génnee lu nekk. dëgg la wallaay dëgg la vraiment macha allah yal yàlla barkeel. ak ba tey maa ngi gis fii euh, tëng bu rafet macha allah kii kan la. waaw tëng bi neex naa présenté moom euh, doomu Vietnam la. yaayam moom mooy njéemé moom am na six mois léegi. six mois la am léegi macha allah moom mu nekk vraiment tëng bu rafet ak kan. maa ngi seen beneen bu weex bi mooy kan. waaw kii euh, moom tamit doomu Sebinton la. Hmm. Sebinton nekk doomu Abbas Abbas nekk doomu Papi. Hmm. moom léegi am na sept mois. Hmm. waaw. am na sept mois. macha allah yaayam encore nekk doomu Mandela. doomu Mandela yaayam nekk doomu Mandela. ah ok Mbale ok ok macha allah. aywa euh, ak kan. kii tamit doomu Vietnam la. yaayam nekk doomu francophonie. Mhm. donc moom yaayam moo nekk maamu Dabala maamu Dabala. ok Dabala bu gagné espoir. Mhm. voilà yaayam mooy maamu Dabala. ok waaw macha allah. yaayam mooy maamu Dabala. moom ah. doomu Vietnam la. doomu Vietnam la ok macha allah. bu am solo ci ci ci bergerie bi. ba tey mu mel nii des na beneen tëng boo xamante ni macha allah. ki tamit doomu Vietnam la. yaayam di njéeme moom tëng bi ñuul moo doon présenté léegi ñoom ñaar ay seex lañ ñoom ñu ngi toll si ay 6 mhm. waaw. aywa mu mel ni vraiment base de femelle nga téye instant bi nii ci Vietnam gannaaw bi nga xamante ni euh, doomam bii di Dabala vraiment macha allah am na ndam ci euh, huitième édition bi euh, génn premier ci catégorie mâle espoir ñu la ci ñaanal barke bu baax. amiin amiin ñu bokk di la xamal ni vraiment élevage nii rek la boo ci nekkee gëm ko. di ci investir te vraiment di ci xaar njariñ. Mm-hmm. nii rek la mën a demee. aywa ban message nga am booy lancé. waaw message bu may lancé rek di féliciter éleveurs yëpp yu nekk mhm. Sénégal ak yu nekk ci bitim réew yëpp maa leen di féliciter mhm. surtout nag waaye euh, ak Grand Yoff mhm. donc Grand Yoff bu ñu ko waxee moo ëmb aslem Grand Yoff di sant tamit waa Yoff parce que depuis ñu créé seen association bi ba léegi dañ ma boole si biir ma bokk ci donc man dama nekk ñaari parti benn bi Yoff la benn bi aslem Grand Yoff donc wax dëgg yàlla maa leen sant bu baax a baax et su ma xew lee ñoom ñëpp ñooy jóg voilà wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp ñëpp lay sant éleveurs yëpp lay sant. encore tamit deuxième chose tamit maa ngi sant euh, sama xarit. Tamsir Lo moom moo jox wennam di sant grand maam si la moom mu facilité ba mu mën a jot si wennam wax dëgg yàlla ma jotee wennam ak léegi réccu ma ko Pape Gueye Tëngéej tamit maa ngi koy sant ndax jàpp na pour ma jot si wennam donc léegi maa ngi sant éleveurs yëpp. kii tamit sama rakk la Omar Cissé. Mm-hmm. depuis ñu xamante yàgg na. Mm-hmm. mais xarit tax na. ba mu mel ni man ak moom ñoo bokk ndeeg bay voilà ku sawar la ku bëgg si xar yi ku mën a sonn si xam mm-hmm. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm mm-hmm. parce que lépp loo xam ne soxla naa ko mu taxaw si mm-hmm. maa koy sant bu baax di ko gërëm waaw aywa euh, grand élevage mën nañu xam adresse su euh, ferme Dabakh élevage fan la waaw ñu ngi nekk euh, xar yi ñu ngi nekk si Cap Foire numéro 10652 boo jógee si uno bi deuxième rue ak gauche boo jógee Koromak boo rombee hôtel sum-sum a droite moo moo ko école la poussi ni ñoo taxaloo bu nekkee ferme nag yi la mm-hmm. ñu ngi nekk euh, benteñe mm-hmm. après bu avant nga yegg buuxu fa la ferme dabaax élevage nekk voilà ñu ngi jaayee soow yi si kaw tali bi po yi mm-hmm. ak foofu la ñuy la ñuy lañ nekk suñ nekk di liggéey waaw nekk di ci def liggéey bu am solo mel ni yéen a ngi euh, jaay foofu noonu comme ni nga ko waxee soow ak nag yeeg yooyu noonu yéen a ngi ci vache laitière yi waaw waaw actuellement ñu ngi si vache laitière yi depuis 2012 voilà ñu ngi fii ñu ngi di transformé tamit ay pot de sow. Mhm. ñu ngi libéré tamit meew à Dakar. Mhm. voilà ñu ngi bay tamit culture française si loolu lañ nekk daal. mi ngi noonu mbokk yi dinañ ko seeti incha allah waxtaan ak moom ci jaar-jaaru élevage am ndax gis nga ko ci xar yi la tàmbale woon tey mi ngi ci vache laitière bi di ci def liggéey bu am solo di jaay soow di jaay meew dinañ ko euh, seeti mu mel ni mon frère Cissé. waaw euh, dafa am loo ci bëgg sànni comme kaddu. waaw li ma ci bëgg a sànni mooy sama grand frère la. boo xam ne dafa baax ci man lool. Mhm. kii moo ma joxoon grand baabu. Mhm. ma liggéey ci jaay ko Sidi Ndaw mhm. moom la Sidi yoon mhm. ah, mu doon ku baax ci man ndax bi ma ñëwee di jënd grand baabu mhm. am na xar yu ma bëggoon moom moo ma conseillé ma nem da ngay soog a débuté te xale nga jëlal xar bii ak xar bii nga dem dépasse te xar bi ma doon jaay benn njëgam moom la def ñaari mu dox ma te bi ma ñëwee di ko fay compan na ci xaalis bi may ma may la ko dëgg la ne ma mm-hmm. mu ba ma dina ñëw sama kër di ma ñaax su ma mm-hmm. jaarut ci yoon mu ne ma fi nga jaar baaxut mm-hmm. pour jubanti ma pour ma tegu ci yoon loolu ku baax rek moo la koy defal dëgg la su bu ko neexee bu ma joxee xarit sax du jaar ci man dëgg jour moo jël téléphone am woo ma ah chaque jour mu nemmeeku ma chaque jour mu di ma woo defal nii defal nii defal naa defal nii defal nii su doon su keneen bu ko neexee loolu yëpp du ko ci fekk dëgg la waaye ak mbaaxam rek moo tax loolu ko olof nag araam nag day wax ne al mbiru mbaax mhm. xesul xulóob mooy rafet ak jikko ku sa jikko rafet rek baax yeneen bi moo ñu gën ñun ñëpp suñu borom ci jikko rek la ko tàgg dëgg la kon baax rek moo am solo yàlla na ko def yàlla defal jiw mhm. moom ak njabootam ak lépp loo xam ne laxasu na ci moom ba lépp lu mu laal suñu borom def ci barke amiin yaa rabbi barke rek moo am solo moo am solo yàlla noonu yàlla defal tawfeex ak taysir defal ñëpp jàmm ndam li ñu sant ci suñu borom ndax moo ne ni la in sakartum la asidannakum wala in kafartum inna asaaba la sadid dëgg la bu ngeen ma santee ma dolli leen mm-hmm. kon ñoo ngi dolli sant suñu borom ci ndam li ñu am di ko ko feete ak ëllëgoon yëpp dëgg la waaw di ko ñaan yàlla waaye bu ngeen bu ngeen bu ngeen weddee wala bu ngeen beewee sama mbugal tar na tar na ci aywa dafa mel ni loolu ndong daara yi ñoo koy xam waaye xam nga ni lii bokk na ci kéemaanu yàlla eh, niñ koy waxee saa su nekk nit sant Cissé mbaax genn xeetu mbaax gi googu moom ngéemaanu yàlla ndax wax dëgg yàlla mbaax googu saa su nekk ñu ngi koy gën a séntu ci ñi sant kanji moo tax yàlla tëlewul dara borom bi subhanahu wa taala bokk na ci mbaax nit defal la lu baax nga taxaw wax ko waaye ku ko def bañ koy wax it ñoom daal daal mel ni ñaari siise siise yi bokk nañ ci ñi nga xamante ne moom macha allah aywa yal na yàlla barket grand élage loolu la xaar ci magu éleveur magu éleveur li ñuy xaar ci moom mooy bu nit jógee fële ñëw bëgg ci li nga xamante ne moom nga yor nga xool ci la nga jox ko ñaanal ko ci barke souvent borom bi subhanahu wa taala mën na ci rek loxoom ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow tamit di la ñaanal ndam lii yàlla na la jik yàlla na ci yeneen ndam topp incha allah di la jox rendez-vous à bientôt incha allah amin incha ñëpp surtout mm-hmm. waaye ndax sama ay xarit lañ. sama mm-hmm. lépp lañ. Mm-hmm. donc euh, numéro téléphone bu ma war a joxe bi mu ngi nekk 77. 472 72 12. voilà heure ku si woote rek di nga jot El Hadj Cissé. ok waaw incha allah. aywa jërëjëf. merci beaucoup merci. mooy télé bi sama.